tal ginnaaw biñ leen sante bu baaxa baax ci seetaan ak soutenir bi ngeen ñuy def ñu ngi dellu di leen ñaaxaat ngeen di partager vidéo yi di ko eme ndax kat gis nañ ni ka vision yi demewul noonu pour ñu soutenir suñuy fere nag di leen tegal ay video ni ngeen ko bëggee yeetal mu ngi leen di ñaan ngeen def lu ndaw loolu ndax gis nañu canal bi ñu bari xamaguñ ko te am na bu ci yàlla àndee ay surprise yu bari yu ñuy préparé ci vidéo bii nag bëgg nañu xam que yéen bëgg ngeen ñu jàppale bu baax a baax xarit yi réseaux sociaux yi ak képp koo leen xam partage leen ko ci vidéo bii nag yeetal mu leen ciy présenté ku am jom ki ak ku ñàkk jom ki dëkk bii ngeen di seen ak kër gi ngeen di gis ñaari seex yu ute loolu ñoo fi dëkk muy Ousseynu ak Assane Ousseynu nag dafa doon nit ku baax ku dëggu ku am jom te nangoo liggéey waaye Assane mii di seexam dafa doon nit ku nga xam ne dafa bëgg lu yomb lool te ñàkk jom tey nag fajar jot na Ousseynou gàddu na sémmiñam tegu ci yoon bi waa léegi ma xool su ma jotee dix mille waa soxna si mun naa ko jox cinq mille waaw moom mu ma doon wax sax xale yi seen école soxla nañ mille waaw pour seen école ñu ngi doon laajte 2000 léegi waa Assane moom pour ataaya moom mun naa ko jox mille mu def 1000 francs baax na baax na 1000 francs yi mun naa ko téye baax na. asalaamaaleykum waaw Modou ah waa matt yaa ngi nii de ah waaye gis naa ni suba day taw xam naa ni damay mujj dellu si waaw damay dellu si. dinaa guddee nag xam na waaye nga xaar ma waaw nga ne dix mille waaw waaw mille la dix mille ooy aay ban heure sax onze heures ma jug léegi wala ma tëddaat ba ci kanam dem ma nag sama xarit dañoo vee guddi gi yëpp dañ doon ataaya ah yàlla nag nga may may liggéey ma jug di xëy nijaay sa semmiñ baa ngi nii yal na la yàlla teg ci yoonu jàmm Ousseynou mii moom xool ko rek bàyyi ko rek ndiggam bi dina fi damm nit koo xam ne coono rek la ñame xool ma liggéey yu metti yi rek bi ay waxtu jàllee Assane nag comme ni mu koy defee saa yu ne neex na waaye ah. man de xaw ma ni kañ laa ci jóge ban heure moo jot sax une heure deux heures ah wala est ce que duma xaar ba trois heures jabru Ousseynou bi xam naa sax lee mu pare añ ah xaar ma dem sax mu yàkkal ma ah ñame coono ba dee man waaye tamit ni may dundee nii neex na nga xam ne dépense da lay wàcc doo fi nekk di joxe dépense doo def dara te jigéen ñi noonu lañu ñu lakkalee ah, ma continuer nii rek Ousseynou nag wër na àll bi yépp ba gis fu mu war a liggéeyi tey ay eh waay ay eh waay man di lu ma dal de ay eh waay man lan laay defat sama sémmiñ bi dugg na ci ndox te soxna si mu ngi may xaar man ci laay dépensoo xale yi man lii laa am lii mooy sama liggéeyukaay ay waaye dugg na ci ndox bi waay ak jaaxleem nag ci la jékki-jékkee mu dégg luy génn ci ndox mi Ousseynou man la boroom ndox mi looy xool looy wër salaamaaleykum ah waa nga baal ma de nga baal ma de sama semmiñ bi de moo daanu ci géej bi te man ay ata nii moom laay liggéeyee waaw ay ay billaay nag tay ma ko tay ko de ah waaye semmiñ bii nga gis de mooy génnee dépense mooy def lépp ay ata moom laa yor moom laay liggéeyee semmiñ bii ab or la mun nga ci dund ba dundal ci ay sët bii la wala du bi ah or la ah non man sama bos bi du or de semaine bu yàgg la waaw ah, moom boobu moom yàgg na torop maa ngi ko yoroon ci liggéey. wóor na la. ah waaw mais sëñ bi man kay du ma jël lu ma moomul nee la bii du sama bos ndax bi ma gis nii or la bii du sama bos. bii tamit ab xaalis la mën nga ci dundu. ba dundal ki say doom la wax nga ni xaalis la ah waaye sëñ bi du bii de man sama bos bu màgget la bu màgget yor naa ko depuis bu yàgg te bii ñaari bopp la man sama bos benn bopp la am waaw te moom sax boo xoolee jàppukaay bi loxo bi waaw dafa dammoon waaw fayoon naa defarkat bi daajal ma ko defal ma ci ay pont deux cent laa ko fay waaw moom moom bu màgget la boo ko xoolee rek damay xam déedéet déedéet du bii non man kay boobu ci laa liggéey xam naa ko bu baax non eh, bii kay borom bu ñee soxla ko nag déedéet man kay du ma jël yëfu jàmbur du bii du bii. waa kay nag mu ngi nii bii la gis nga gis nga pont yu ma la doon wax sànq mu ngi nii waaw moom lañ ma defaraloon daaj daajal ma ko. wane nga ne ku maanu nga ku am jom nga. fu mu tool nii nag ñetti sémmiñ yépp laa lay jox ka def ci loo bëgg loo wax nga ni ma jël ñetti yëpp ay eh waay jërëjëf waay ay eh waay jërëjëf waa moom li mu yor nii moom doy na waar di xoolal mu ngi melax xaaral ma dem yenn xool muy wax jabar ji soxna si ah soxna si coono jeex na tey dëkk balaa jëm tabaxal la fa état bu rëy rëy xoola féminin bii neen bu ma ko jaay ay million laa ci am mun nañ ci dund ba suñuy set dund ci ay waay coono jeex na waay yàlla ñëw na loo wax ni nijaay alhamdulilah alhamdulilah ah nijaay yàlla sa coono rek la la fay ku sonn jëriñu dex ah dex borom dex <laughs> ah man kay suba damay dem xëy ca dex ba Assane nag bi mu déggee lii ci la jubalee ci àll bi bi mu eggee mu daldi sàndi sémmiñam bi ci ndox mi dégg naa la ngay jooytu dafa am loo réerle man la borom ah, man de sama sémmiñ bi moo wadd fii bii mooy sa sémmiñ Assane ah, waaw boo génnee dinaa la wax nu mel yow kay génneel génneel rek ci noonu nag la boroom ndox mi tàmbalee di génnee ay sémmiñ Assane di ko ne déedéet ba bu muy gis bi mu soxla ah, mooy bu or bi de waa kay jërëjëf jërëjëf waaw waaw xam naa xam naa kay jërëjëf jërëjëf Assane sémmiñ bii duma la ko jox ndax moomoo te xamal ni yàlla yàlla béy sa tool te ku sonn njëriñu duma la jox benn semmiñ nag lan waaye léegi lu tax mu jox Ousseynou man joxuma dara moom nii rek la bañ nekkee xale ba léegi dafa am wërsëg man aw wërsëg man est-ce que duma delluwaat sama nelaw yi bi bés bii jàllee nag ci la Ousseynou dal di tàmbalee dund dund bu neex lépp luy coono daldi koy wàcc Assane nag fi mu nekkoon la nekk fu mu nekk di jooytu waaye li mu nekkee dama leen di laaj ndax du moom moo ko teg boppam yeetal mu ngi leen di sant bu baax ci seetaan bi ngeen seetaan vidéo bi di leen jox ndig ndaje nu mu gën a gaawe